Oh. aleykum mbokk téléspectateurs yi suivre Medina Cheikh TV ñu ngi leen di nuyu di am contentement bu rëy retrouver leen aujourd'hui fii nii si Medina Cheikh Tidjani di Saint-Louis ak ki nga xamante ni moom mooy Seydi Mouhamed El Cheikh fas yéene am ak moom benn interview alors euh, bu ñu ñëwee suñu première question ak ki nga xamante ni di Seydi Mouhamed El Cheikh ba tey ci wàllu gàmmu 2019 ah euh, tout d'abord ñu ngi lay remercier si sa disponibilité. ñu gis na ne que euh, gàmmu 2019 bi dafa am affluence bu extraordinaire bi ba gis nañu sax alentour bi yëpp fees na ak seeni taalibe hôtel yëpp macha allah nit ñi jógee fu nekk ci àdduna bi ñu bëggoon xam fii ci Médina Cheikh ban spécificité la gàmmu gi am. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lima uxliqa walqaatimi lima sabaqa naasiri walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim soxna Zeynab maa ngi lay nuyu ak waa équipe bu Medina Cheikh TV yëpp di leen remercier ci seen teewaay ci béréb bi di Medina Cheikh Tijani li nga wax aussi ci wàllu gàmmu 2019 bi foog naa ni képp koo xam ne tey da nga aju ci Medina Cheikh aju ci ñun tabarakallahu ñëw nga fii pour assisté ci gàmm gi nga xam ni mooy édition 2019 li waral nag affluence beek ni nga xam ni moom la taalibe yi di wane seen volonté ki seen détermination ci mission bi c'est parce que tout simplement yàgg naa ko di wax ni ñun kenn du ànd ak ñun ci di làmbaatu kuy ànd ak ñun da ngay ànd ak ñun ci xàqul yaqin kon ñi fi teew ñëpp je pense que dañu xool jàngat ñu ci zaahir ak ci baatin ba ñu doy leen ci diine ji ak ci tariqa bi ñu ñëw fi tey ànd ak ñun tabaarakallahu te noonu la ñuy continuer di ànd ak ñoom ngir feete guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye aussi ngir delloo njukkal Mawlaay Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu ñu des ba tey euh, si euh, ba tey ci période du gàmmu gi Wazifa Tisbaar bi nga xamante ni yéen a ngi koy def tout le temps si lendemain gàmmu gi wax nga ni ni si ndigalu Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu nga koy defee aussi tamit nga wax nu ni que garantie la ba déwén ñu bëggoon la laaj garantie boobu garantie lan la si naka ak si ñan. concernant Wazifa Tisbaar bi bare na ñoo xam ni miin nañ ko ci Medina Cheikh. lendemain gàmmu bu ñu jullee tisbaar ba noppi ñu lal malaan def wasifa boo xam ni moom mooy clôturer cérémonie religieuse yi nga xam ni am na fi ci fan yi yëpp tabaarakallah wasifa tisbaar bi ca depuis deux 2006 la ñu ko Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif autorisé ñu di ko def benn yoon ci at bi muy coïncider ak bu ñu gàmmoo ba ca ëllëg sa tabaarakallah wasifa boobu nag li mu ëmb dafay dellu ci wàllu spirituel ak wàllu mysticisme ndax ni ñuy wasifa en général lañu koy defee waaye li mu denc ci secret yoo xam ni tey jii buñ ko nattoon ci wàllu baatin wala ci wàllu xayb dana doon secret yu extraordinaire yooyu yëpp dafay dox ci malaan boobu nga xam ni moom la ñuy lal ca gannaaw bu nu jullee tisbaar ba noppi Mawlaa Cheikh de Tijaani nag di ko yeesalaat ca sunna ba nga xam ni noonu la doon defee zikru salaatul fatiham ca waxtu ba nga xam ni mu nga doon coïncider ak suñu ko nattoon suñu waxtu léegi fii ci Sénégal muy 13 h loolu nag la ñuy dundalaat muy secret mystique boo xam ni jox nañu ko ñun waa Medina Cheikh Tijani ak ñëpp ñi nga xam ni dañ ciy ànd ak ñun ba tax na suñu defatee gàmmu bala lendemain rek dañuy lal malaan bi ne def suñu wasifa clôturer ko suñu cérémonie mu nekk nag wasifa boo xam ni la ci jóge ci wàllu émotion bi nga xam ni moom la ci nit ñi koy teewe di am ak ci wàllu leer ba nga xam ni daf cay bawoo ñëpp di ci teg bët kooku defe naa ni mbir la moo xam ni ñu lu ñëpp di bàyyi xel la te lu ñëpp di xaar la toujours ca lendemain gàmmu gi incha allah. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ci sa réponse ñu gis ni euh, gàmmu de manière générale ki ñuy wax Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu doon euh, xalifa cheikh aussi moo ko vulgarisé euh, ñu gis ni def ngeen jàngale yu am solo ci jëmm ju tedd jooju ñu bëggoon xam ndax gàmmu dafa am sens mystique si oui mystique bi lan gàmmu dafa am sens mystique am sens spirituel waaye bu ñu ko xoolee ci organisation bi yëpp ak ci cadre bi. dañuy gis ni gàmmu mënul génn inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii ya ayuha allazina amanu sallu alayhi lu gàmmu yaatu yaatu mënul génn ci cadre salaatu ala nabi ndax yeesalaat suñu buum bi nga xam ni moo dox suñu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te di boomu kóllëre tabarakallah su ko defee nag ici au senegal Seydil Hadji Malick Sy moo jox gàmmu dimension bi mu am tey jii moo jox aussi gàmmu valeur bi mu am tey jii ba nga tax na bu jotatee rek ngay gis kenn ku nekk di xalaat guddi yonent bi ban taxawaay la cay am mais taxawaay boo xam ni surtout ñu fexe ba muy di dëppoog yi yonent bi di jàngale muy ses enseignements mais di dëppoog jukko yi nga xam ni daan naka inculqué ci ñi nga xam ni daan nañu ñëw muy ànd ak ñoom tabaarakallahu di dox mission ci période bu nekk kon mysticisme gàmmu yëpp suñu ko doon natt dañ koy natt ci lan la fa nit ki mën a jële ci guddi googu te mu doon yiw gu koy jëriñ ba déwén bu ñuy natt côté spirituel bi dañuy natt lan la nit mën a jële te muy jukko ju rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dolli ko ca jukko ya mu amoon di doxe noonu ba bu muy dajeeg boromam incha allah bëggoon neen xam aussi li nga xamante ni moom mooy euh, jeudi vendredi samedi yooyu bés lan lay représenté ci sa xadara parce que gis nañ ne que sa ay taalibe dañuy faral di ko di ko def waaw bëggoon neen xam lan lay représenté ci sa xadara. xam nga d'habitude jeudi même su fekkente ni sax nekkuñu ci cérémonie. gàmmu wala lu ni mel jeudi moom ñëpp xam nañ ni boo ñëwee Medina Cheikh bu ñu jullee gee ba noppi dañuy lal malaan def tarbiya mille la ilaha illa allaahu ginnaaw fatiha 30 euh, astaghfirullah al azim allazi laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum dañuy def tarbiya ginnaaw gee boo xam ni dafay concerner mille la ilaha yu ñuy zikr loolu aussi même bu cérémonie bi amee lu jot ñàkk-ñàkk bu mbooloo mi dajee rek ñun amuñu ni ma koy waxee lu dul zikr c'est parce que amuñu lu dul mission boo xam ni yàlla yonent bi Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijani moo tax cérémonie bi lu mu bare bare nit lu jot ñàkk-ñàkk du tee lañ doon def ñuy continuer di ko def kon nag loolu ngeen gisoon ci jeudi bi ñu ko doon def guddi aljuma vendredi bi ñëpp xam nañ ni képp kuy taalibe Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijani bu jullee tàkkusaan priorité am la mu war a nekk mooy xadaratul juma kooku nag defe naa ni bu ñëpp dajee ñëpp war nañu fexe ñu sóob leen ci principe boobu sóob leen ci condition boobu ba ñu xam ne ay tiijaan lañu kon ku ci julli tàkkusaan sa xel ci xadaratul jumaa la war a dem loolu mooy li ngeen gis àjjuma ji ba ñu jullee timisit ñu def suñu wasifa tabarakallahu samedi bi nag noonu lañ koy répété waat ba guddi gi jot nag ñu jublu ci anniversaire yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dimanche jotee incha allah bu ñu jullee tisbaar ñu soogay clôturer cérémonie religieuse bi ak wasifa tisbaar macha allah. jërëjëf seyd Mouhamed El Cheikh euh, xam na ni euh, xam nañu ni aussi tamit événement bu mu mënti doon muy sa tournée nationale yi ngay faral di def mois bu jot di gàmmu et cetera doo leen préparer discours yi en général euh, daaw si gàmmu gi ngeen ñëw ak ñun si li nga xamante ni moom la ñuy oowee la rupture de la lumière prophétique dans l'avènement de la création ñu bëggoon xam rek lu nu mën a xaar si yéen ren macha allah. boo gisee d'habitude du ma faral di bind kayit di ko tiim parce que man yaruñu ma ci texte dañ ma yar ci wax yu mission bi ma yore ci wax yu lañ ma yar fi may puiser maa ngi puiser ci wala duniyaati wala duniyaati bi ilmu la dunuy ba nga xam ni moom lay lumière ba di dégager ca lay tibb di ci wax loolu nag du man maa ko def ci sama bopp yàlla moo ko def ci man jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jaarale ko ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu boobu ba léegi ma di ci wax euh, thème bi nga xam ne aussi indi woon nañu ko ci gàmmu daaw muy thème bu am solo euh, lumière du profet bi ak rupture bi am ci diggante xeet ya nga xam ni mënuñu nangul yonent bi lu tax mënuñu nangul yonent bi te bi ñu nekkee alastu ca alamul arwaax yàlla ni woon alastu bi rabbikum xaalu balla ñëpp nangu woon am ñu dellu si fii weddi loolu la expliqué daaw ren nag maa ngi fas yéene focaliser wu ca la nga xam ni moom la ñu ma ilham mooy ci diggante le prophète de l'islam sa relation avec les astres ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa ni ko wama arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa naziran wax ko aussi wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon yonent bi porteur de bonne nouvelle la léegi nag dañuy fexe ba nouvelle boobu ñu wan ni ndekete du nit ñi rekk ci jot même astre yi jot nañ ci jant bi jot na ci weer bi jot na ci biddéew yi jot na ci kon nag loolu la ñu bëgg décrypter incha allahu bu guddee ci guddeem gu tedd gi su ko defee ñëpp jëriñu ci ba ñu xam ne yonent bi tabaarakallahu mooy le meilleur des êtres créés mooy l'essence des bienfaits mooy la lumière des cœurs waaye jëriñ na monde shahada jëriñ na monde xay bu tabaarakallah jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh si sa réponse yu am solo yi ah, mbokk téléspectateur Medina Cheikh TV ñu ngi leen di jaajëfal lii la ñu Seydi Mouhamed El Cheikh indi loon ci gàmmu 2019 ñu ngi remercier équipe technique bi nekkoon ci ginnaaw yëpp di leen jox dig daje rek ba beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu